ci juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent test yi ñu def fukk ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ñett cas contact mooy ñiy jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ji yore doomu jàngoro ji am nañ ci kenn ki nga xam ne bitim réew la bàyyeekoo te mu ngi duggee aéroport international Blaise Diagne de Diass am nañ ci juróom benn ka communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu fiñ ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Fann bel moo ci am benn Kédougou am benn Xombol am benn Mermoz am benn Popenguine am benn ak Sicap Jëppal am ci benn téeméer ak fukk ak juróom-ñett si malade ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde fukk ak ñeent ñu nga réanimation benn malaat ñàkk na bakkanam bésu démb dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tànn ci bësu tey dale ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent ak juróom-ñeent téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñaar ak ñaar téeméer ak fanweer ak benn wér nañ si ñett téeméer ak juróom-ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak ñett téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ak juróom ak juróom-ñett si lalu hôpital yi walla ci loxo docteur yi